maanaam yéen ne yowmal xiyaam day kon ku bañ ma añ wàcc la naa dal ci sama waari ci sama waari mooy alquran karim bustaani kitabullah benn tool laa am mooy bay rek mu alquran karim mbokk yi lu réy yi seytaane ko xam ni lii ko sëñ bi lii muy joxe bu ci jaaree dañ ànd ak moom dem aljana te loolu arrangé wu mu fexe ba ñu ko yàqal bëgg koo jaarale it nag ci liñ gëm yaa yoon naas laa tax laa yaxurannakum alxayaat dunia wala yaxurannakum billahi alxarur laa taxurannakum alxayaat dunia wala yaxurannakum billahi alxarur billahi la wax wala yaxurannakum billah maanaam bu lay war ci li nga gëm la lay jaar ina cheytaan lakum aduwun fattaxiduhu aduwa innamaa yad'u a liyakunu mina al-khasirin nee na seytaane moom li nga gëm na lay dal ci la lay jaar pour yàqal xasida yi Sëriñ Tuubaa yi am di meññeetum alquran di lu màgg lu rëy lu kawe lu am njëriñ ci fànn fànn jëpp di laabal ay xol di jubbanti ku dëng di saafara jàngoro yaram ak jàngoro xol di ubbi ay bunti wërsëg di ko yombal di guddal fan di faj aajo lépp lu mu doon xasida yi man àgg ci damay fa di wax ne bu dara lañ waxoon maam Coor Ibra Faat bis dañ doon jàng xasida yi suñu bàyyi ne dañoo toog ba jàng xasida ba jaay maam Thierno jooy jooy métti sëñ Tuubaa noppi la ko doon jàng dafa mel ne li tax a jooy de mooy déggu arabu déggu arabu ki ko doon wax muy moom ba lépp lu làmmiñu arab laaj rek jox naa ko misaan arab bi dara demu ci balaa nga bi feeñ ne bayaan feeñ lépp feeñ ne ne ko ñaareel ba mooy am neex baatu ki ko doon jàng Thierno looloo tax a jooy ne ko waaye Thierno li ma lay xamal mooy fa ma ko doon lu waxee kuñ fa yóbbu woon ku sa waa ji bu xamee lu muy wax lu ko fa jëlee jàpp doon waaye doon tagg yàlla yoon bi kon parce que lépp ngi ci biir lépp ngi ci biir day fa doone mais dañu la xasin sàngam nangam xasin sàngam nangam mel na ko laay bët def rek waaw li ñu wax jaaree maraax na naan day def lii day def lii day def lii man it man du caa yëngu xas léegi daal ci loolu la ngeen nekk waaye Sëñ Tuubaa dafa am leer jaari batu al maraaxib la wax al maraaxib al alif ak laam la maarifa mu ne woon jaari batu maraaxibin alif ak laam nga dañ kon doon problème waaye Sëñ Tuubaa ne jaari batu maraaxib day xëcc xeeñ ñeent yëpp xeeñ ñeent yëpp Sëñ Tuubaa xeeñ ñeent lay xëccal loolu nag bu xëccalee jaam bu mel ni man dootul mën a jaxasoo doomu aadama yi parce que xaymanteelu Sëñ Tuubaa bu ko xaymanteelu gars yi loolu ñu xool lu li ñuy yittewoo lu ñu yittewoo daal moo bu la ko daan durus jaxasoo mi dana dana dana defee lool. am soxla ci ci dundu àdduna dana ko jafe lool loolu parce que lii lépp ngi seen bi waaye mbokk yi àgg nañ ci loo xam ne yëpp seetaan la bokk na ci mooy jël xasida teg ko ci kaw alxuraan nga dégg ñu naan la ku naan la man du ma jàng alxuraan xasida rek laa jàng mooy sëñ Tuubaa digal na ma lànk naa ndax ba fii ne Sëriñ Tuubaa néew na sa alal jàng xas yaa xam ne baax na am na njëriñ nga ne ab murit wut ñàkk jàng xas yi wóor ko def waaye nag leemul sëñ bi ne la jàngal nga naan xasida yi moo gën alxuraan subhanallah ci Sëriñ Tuubaa bi ci loolu la wax ne yàlla kataba allahu tabaraka yàlla bind na moom boobu jàllee xadis yoon jàll sama wax jii bi xasida yi moo ko gën a lul moom léegi ngeen sëñ bi ah biir dangaa juum rek ndax xasida yi a am alors sëñ bi wax la waaw nga ko wax ne ko du nii subhanallah men bopp di ko mu ne lay xamal ne xasida yi gën alxuraan gën koo barkeel mooy ñiy jàng alxuraan bu demee ci màggal yi ca baas ba ci biir te teg doo leen génn paan ndox teg fa ab pot ñu leen ceeb woow bu ñu dem ñu boy leen dix fa ñu seddo waye di jang parce que mom bala ñu ci bi dañ koy signer 300 millions bu ñëwee trois cent matin lay lay jënd jang ñaar parce que ñatt ñu dajale ko ci base bi du man du jegee 300 millions mu yóbbu kon xasida yi gën a barkeel alxuraan man ko kay musique bi gën a barkeel xasida bu dee rek gën toy tuwaay bi gën barké barkeel rek barkeel loolu barkeel loolu barkeel ndax xasida yooyu kat te la ci a jaar yoon gars yi doon jàng fii bu fi doon jàng ba suba pour nga fekk gis bu doon ku yàggaay yi lay teg fee léegi bu dee yàggaay am na léegi mu fees waaye bu dee njàng mu dëggu pour nga am dërëm problème la problème la wax du nattuwaay bu doon nattuwaay kon xam ne daan entré entré vingt cinq couple cinquante mille VIP cent mille francs ñu naan ticket jeex na jigéen ñi jaar na gaa yaa ngi ci bitti nga nekk boo boxloo ci bitti xale bu ndaw bu juddu bët démb du sol lu baax du ko du ko du ko def ah waaye waaye kooku bu nga nee feesal ay ay ay barab yooyu tey nga ne nga ne loolay barke sëñ bi yow sëñ xamoo barke loolu barke sëñ Tuubaa di la waxoon ko mag ñi neewoon na leen adduna dafa dafa xëpp samay loxo ma gees di ko sànni yem ci yéen ma xëpp leen ko dégg naa yeneen ku tudd barke waaye du ko bu doon barke ku taxaw tuur ndaw du ko gis bu doon barke ku taxaw tuur ndaw du ko gis kon nañ bàyyi nattuwaay yenn yi mënuñoo incha maanaam mënuñu découvrir ci xasida yi lu sëriñ Tuubaa bi mu bind découvrir lu mu xamul sëñ Masamba lu ko daan maas xamu ko maam Thierno Fatou ma nekkoon loxo ndey yor nekk surtout lu nekk moom suñu Tuubaa ko xamu ko sëriñ Moussa Sow xamu ko sëriñ Fallou xamu ko loolu bu ne la yaa ko xam seytaane la ko xamal loolu yaa ko xam seytaane la ko xamal ñee mënu leen a ëpp pësteef mënu leen a gën a xam mënu leen a lekk am na ñoo xam ne ñu bëree bëri ñu ñu wax loolu sax bu boo leen woon jàngal benn béy wala ñaar yàq kese la ñuy jàng pour ñu génn benn xaraf comme foo war a génne problème ci parce que boo demee ba ko jàng daan aw yoon laab ga jullu teeb ga wér ga waaye sa sa dollu bu dee looy wax nga dugg ah fukkeel bi ngeen àndal maanaam ah la lu may wax nga dugg ci sëñ bi ci ak jotaay loolu desul nga nekk si biir xas de munaajaat la di yàlla ba ngay jàng sab mawaahib bu it benn mawaahib man nga ko jàng juróom-ñaari yoon wala nga jàng fukki yoon benn doon ko soxla waaye gars yi dañ koy doon juróom-ñaari mawaahib fukki mawaahib boobu benn ñaar di ko di ko jàpp ko di say-sayee loolu fii nawam min ar-riyaa njësal ñu ànd na ci c'est lu de lépp seetaane moo ñu fexe yàqal rek xam na ne bu ñu toppee seen bii jàng alxuraanam jii jàng ci xas ne yii danañ dem aljanna te moom li ko yitteel mooy ni ñuy fexe ba tàqal ñoom seen wax naa ko fee sànq fu ma la waxtaan naa ne am rek seetaan day ñëw ci yow na yow am nga nag waaw moo ne yow ajal nga jëm mu wax mooy kan la ba am mbooloo waaye yow dem nga nag nga ne waaw boo liggéey mu des ne la waaye yow sa waay ajal nga jëm yow loolu sonn ci jaamu yàlla yi métti yi loolu ñu sonn waa yàlla yi ginnaaw lu war a jaamu yàlla ànd nga def ne wax dëgg de daal di wàññi bu léegi mu ñëw sawar moom doo fa jaar loolu sawar doo fa mu ne waa yow sawar mooy yàlla yu ñeent gën a bàyyi jaamu yàlla gën a sori suñ loo gën a nekk ci mooy yàlla gën a sori gën a jege seetaan bu yomal xiyaamee nag nga jàkkaarloo seetaan ma la dugaloon muy yedd iblis danaa ko iblis yaa ma tegu tiis yaa ma te muslu mu naa ko yeddal sa bopp yàbbil saatu bi noppil ñu bokk dund ñoo bokk yan tey dalu la tus tey dalu ma tus tey mu teg a xel topp nga bakkan te def ko sàggan ba yaa ngi nii bon tey doo sanangu tey doo jàmm ñeen ka ay doj lu tàng muy daj lu kenn lu daj li ma ta muslu iblis a di noon te moo di am noon jàppe ko am noon te di ko fuglu ba bara loo far bàyyi xel si ba jax ma waxoon loolu dañu war a bàyyi xel noonu boobu dafa dafa sew ay ay ay pexe ay pexe dafa sew dafa jar gis naa fan yii rek koo xam ne danaa nag bu may tegee ba damaa dama gën a neex mooy naa teg naa jël alxuraan xas bi ci kaw nee na man loolu mooy li ma neex daal ma ne ko seytaane képp du leen de seytaane képp ndax boo leen ci keppaaru ci keppaaru Sëriñ Tuubaa bi yàlla am day kenn ku ci mas a jël alxuraan dara tege ci kawam amul suñu tubaab laa tere demul nangu dara dara dara dara dara tege ci alxuraan léegi suñu tubaab bañoon na nga ne ko maa tey maa koy def ba noppi ne ko suñu tey laa mooy la ni ni ko bañee suñ bi ne nii laa bëgg nga ne ko ni ni ko bëggee nag man defee wu noonu man nii laa ko bëggee suñ bi ne nii laa ko gisee keneen la nga ne ko ni ko gisee man gisee wu ko noonu man nii laa ko gisee kooku lañ doon léegi. di toll dégg murid bi naan dégg murid bi naan man dama julli man ma nga julli rek jàng jàng jàng jàlloon mu naax ko dégg man dégg naa ko li ma wax yëpp sama nopp la sol wala xam ne ma nga julli bu gaa yi julli ma jàng man man si ah julli la ca am sëriñ boo xam ne fu mu mas jaar bu ne la fii doon suul xaalis su nguur dem du ne la fii doon denc bëyam ya wala xaram ya du ne la fii doon def fii la julli war a génne dem ba ci bureau gouverneur bi julli ja doon gouverneur taxul wala kéemaan taxul waxtu jaamu yàlla la am kenn la yëg mu yàlla bu waxtu wa jotee na ko daan defalee yàlla ci Daaru Salaam daan ko defee Touba yëgalu boppam ne yaa ngi kànkare ngee Bambey ñii ba kànkare ngee ñu wut ñu takki oto ñu ay oto jëm fan Ndar lu ñu def dañuy célébrer ñaar rakkaay ca bu jàkka ji noot dee yow doo ko wuti dégg nga ñaar rakkaay déggoo ko doo fi wuti ñooñu looloo bi dafa maanaam sànq may tubaab bi looloo waral bi bi mu asee def loolu maanaam ah suñu am na ful la ñu toll nii li li muy defal programme mu ci am boost changé loolu la ñu mën a bàyyi xel surtout programme bi nekk Mbacke nekk Mbacke Bari nekk Touba. ak ba muy nekk ci digg loxo tubaab yi la ba ko yor yoon te fekkee foofa mu julli ci ñaari raakaam ya ñu xam ne lii arrangé wu arrangé wu tubaab bi ñu xam ne programme jaamu yàlla moom buñ ci buñ ci interprété sëñ bi nañ koy bàyyi ba mu ndax lii da leen minimiser da leen doyal te loolu da ci bépp xalaat bépp kon ne la julli ci lu gaaw boo نانا وعلم بأن الصلوات الخمسة فهمتم أيها الإخوة يعنى؟ فريضة قد أن الوقت اللبسة بالذكر والسنة والإجماع ومن يكن منها على امتناع جهدا لها فهو كان مرتد في الحكم يسرى أبو جيم العبدي فإن يتم يدرك وإن لم يجب تقتله بالشيء في سريعة النبي أنك وليس يغسل وليس يدفن ولا له صلاة ليس يدفن في المسلمين والإمام يرسل سخشا يواري ولا يستقبل bayta ali wal maal yaxsulu fi bayti maali musumi lay ñoon xool wax sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ne farata la ci alxuraan farata la ci sunna sunnat bi farata la ci borom xam-xam yëpp maa sax dangay ci ne julli farata la sëñ Tuubaa nag ko lànk bañ a julli nag ngir wet ne julli farata la dañ lay tuubloo ñetti fan sawaayu kaay julli ni nga ci bëgg génn ci la bokk benn fan jàll ñaari fan ba ñetteelu fan ba sëñ Tuubaa nee bu tuubee ñu bàyyi ko nangoo julli ñu bàyyi ko sëñ Tuubaa ne bu tuubul nag dañ koy rey nee na bu ko reyee dee su ko sang dee su ko sang dee su ko jullee dee su ko suul ci biir armée de jullit ñi buñ koy suul kenn du ko juddale penku alal ju amoon kenn du ko jox da ngay doon ci alal jullit ñi lañ juddal kii des mooy wa man aqarra bil wujubi wamtana min fi'liha wala lahu adrun yaqa fa innahu muaqarun hatta yaji waqtu salaati li qabulil qadri nee na ci des moom mooy beneen man julli moom xam naa ne moom farata la lu wér la farata la waaye man daal saa yi suñ bi julli wàll na sa géej gi waaw da ngay dem julli waat suñ bi julli wàll na sa géej jàpp mu ne ah man jàpp naa suñ bi mu jàpp suñ bi loo doon jàpp seytaane ba wax de bu la ko jàpp suñ bi doo jàpp suñ fal du jàpp suñ saa yi du jàpp suñ mos daa du jàpp ndax ñu ngi gën a jàpp suñ bi fuuf ñooñu gën a jàpp suñ bi de loolu jàpp suñ bi de jàpp nañ ko suñ bi lu ko raw bu dee pas-pas bu dee dara ak mbokk ak lu mu doon rek te teewul man damaa xam suñ suñ jotaay bokk na ci jotaay bi jiitu jotaay bi mujj bu ñu am ak sëriñ Saliou radiyallahu anhu ñun sëriñ daara yi keroog dañoo recevoir a recevoir a daal fii ba ngeen xam ne fonk naa leen lool indi nañ fa grand administre ba mu duggee sëñ bi dafa tàggoo sagom daal di fii de ba sanga doo fi gis kenn ku dul ñu jàngal waa ñu tàmbali kaamil bi sëriñ Bassirou sëñ Fallou bi ñu àggalee kaamil bi fekk fi mu daal lool ci kees bi rek tàmbalee kaamil bi ñu woo ci néeg bi ñu ñëw ki bi ñu àggalee ko suñ bas ne ko am xutba bi Mbàkke jàng ko mu ne ko leen jàngal na xaalis bi gën suñ bas tàmbali jàng xutba bi eh, xarnu bi sëriñ Saliou ne ko dama laa bëgg na nga fasal ma ci lu ma ñor mu ne ma ci fasal njéggalu yàlla mbokk yi ñun ñun nag ñu nekk ci lu neex guddeeg bëccëg sëriñ Saliou boo xam ne mos a def naqaree naa la nawa ci bëgg nga fasal ma ci njéggalu yàlla wala sëñ Tuubaa nekkoon ki saxal ne julli farata la nee na kooku moom duñ ko xaaree suba gannaaw suba waxtu julli bu njëkk a ñoroo leen naan ko sa waay kaay julli samay kay julli ba mu des lu man abraka samay kay julli ba mu des lu may fatiha wala atidaal min xayri ma fatihatin wala atidaal li ajli sawmi dammihi bila nakaam ngir ñëwaat dara tam bi dama bañ koo rek tax ñu kay julli ba mu bu julli bu doon tukkaaw sax julli ji neex sëñ Tuubaa ne ba àggee foofu nag walaw kanat ngir ragal ñu rey ko sëñ Tuubaa ne dañ ko rey nee na buñ ko reyee des na ko sangare des na ko sang des na ko jullee nee na bépp waay boo xam ne yaa bépp ku baax boo xam ne yaakaar ne bu ko jullee bu doon àjjana du ko jullee dañuy woo benn waay bu mel ne man ne ko kaa jullee wala yali salaatuhu du fadli li kay yakuna zaajiran lil muslim sëñ Tuubaa nee dañ ko suul ci biir bàmmeel yi jullit ñi dañ ko suul ci biir armeel yi nee na waaye saa bu duggee ci armeel yi da ngaa war a xam ne kii dawul julli wal qabru laa yutmasu bal yusannamu li annahu inda shuyuuxil muslimin ñu ne bàmmeel bi ni mel ne ko sunu mbaam rek nga war a mel bu kenn maase bàmmeel bi nañ jàll rek dem bu duggee ci amee na xamee ci daw julli waaye léegi ci waxee lu toll noonu ci julli ne waala bi ànd abdala taati salaatu maa fi awal awqaat li gën ci jaamu yàlla yi mooy bu julli jotee ngay julli daan wax ne saa bu ne allah akbar ci jàkka ji lu dul julli ji dagarul lu dul julli ji xaram waaw ku wax loolu ba noppi nga ko lan man sa moo ne maa ngi yow ne sëñ bi maa ngi yow waaye jullit bii moom ñu koy fonk fi nekk gépp man moom tëju ko fonk bu dee moom ngay fonkul fonk ma ko bu dee moom ngay def lu def lu ma ko bu dee moom ngay so bëgg lu bëgg lu ma man daal maa tey foofu lañu àgg bu nag dañu ne ma nag ñoo ànd man di garaaw mooy bu doon dañoo bees suñu ñoo bopp waaye naan ko ñoo ànd de sëñ bi ne la ànd ñëw ñoo ànd ñoo ànd Sëriñ Tuubaa di yaru nee na woon ki xëy jëm penku dëdëpp nga xëy jëm sowu dëdëpp boo dee yéene bokk fi ngeen di añee yaa ngi nax sa bopp ki xëy jëm penku dërëm bi xëy jëm sowu dërëm nee na boo nee yéen bokk fu ñu daanee yaa ngi nas ko suñu foofu la nekk lañ kon loolu mbokk yi xasida am na daraja màgg na kenn am doon yàlla rek xam na doon waaye nag li la Sëriñ Tuubaa digal boo bëggee njëriñ moo ay code ñooyam de bi boo ci benn code fii composé woo ba du ubbi mën a paas fii yaa ngi koy jaawale du duubee mbir ay code la fajar ñu ne dugalal deux tisbaar ñu ne dugalal quatre takkusaan dugalal quatre timis dugalal trois gee dugalal quatre suñ ngeen yooyu nee tey da nga ne suba daal deux deux dafa tur naa def huit jaaxase bi du ubbeeku de tisbaar da nga ne naa def dix parce que wala tey daal damaa tàyyi naa def deux ñu ne kon du beeku de jaamu yàlla noonu la mel Serigne Touba daana wax ndigal ca Cheikh Cheikh Rafa nga war a wax Cheikh Rafa maam Cheikh Rafa balaa wax ndigal jaay bi ne ca jaay bi bu ëppee lu ubbeeku bu yeesee lu ubbi ndigal jaay bi kon nii bu Serigne Touba digalee bu ñu bëggee jariñ nañ ko defee noonu te damay faral wax ne ñu bari ci ñun war nañu natt suñu bopp ba xam li ñu incarné ci ak bëgg Serigne Touba dëgg la wala déet ndax kat. day faral di joxe misaal ni këru 1000 mètres carrés boo fa jëloon tabaxu appartement dugal fa mbërum làmb ne ko dëkkal fii tabax beneen appartement mu sës ñu dugal fa ab footballeur wala sax nga dugal fa ab équipe par am na ñoo xam ne équipe bépp la ñu bëgganoo ne ko dugal fii tabax beneen appartement ni musicien yi dugal fii tabax beneen appartement ne danseur bi wala danseuse bi dugal fii tabax nañu abattement ne acteur bi noonu dugal fii léegi nag tabax abattement ci wér-gu-ne Sëñ Tuubaa kay dëkk gars yi est ce que ñoo dëkk ñoom mooy suñu xol yi suñu xol yi day am ci ñoo xam ne bu ngeen équipe ba ca Europe suñu xol yi ñox-ñox yi daanaka duñ leer ñu bëgg ñu bëgg équipe ba wala bu ne sëñ bi yaa yaa équipe bee bokk xol bi nag da ngay dëkk fii mu dëkk fii. mbërum naa ba mu ñor nga ne sëñ bi da ngay dëkk côté bii mbërum naa mu dëkk côté bi mais mënu leen koy dàqaale sëñ bi nga la bàyyi naa ko bàyyi naa ko man mu dëkk ñoom. moo tax ku nekk ñun war nañ consulter boppam di xool ba xam ab xolam lu leen dëgg-dëgg fii mi ngi mi ngi denale sëñ béegi yenn ci xeet caaxaan rek na ko dana sëñ bi nekk ci xolam sëñ bi dëkk yoon moo tax loolu nag dañ koy war di xool di ko natt jàppee ko ñu sëñ Tuubaa jàppee ci bañ koo jàppee di ko di ko gisee nañuy jàng xasida nañ ko jàng utul ko programme yaa nit lu génn ci yéen seetaan la mooy léegi ay équipe lañ nga dégg ko naan man ma fàttali bés rek ki naan man nuuru dare rek ki naan man jaay raaxib rek ki naan man xamal rek ou sooy man damaa toogoon ci laaj wax damaa toog jàng ma leen reer danañ ngeen dëgg dëgg xam nga li ngeen yow loo xam ne ci kenn ko mooñ kenn kee lépp leen leen ñu bëgg fréquence sa morom yow du ko sa morom man way way ñu waa nangam ñu waa nangam léegi équipe lañ ko def ok loolu loolu kañ la xew kañ la xew man ngeen daan boole lépp jàng waaye da ngay subhaana jàng bu baax day wane ne maanaam man boo dem nuur ah man du ñu ñu waaye ay nuur lan man du ma du bokkul waa kii ne ko nuur rek de saa yi maa ngi ci nuur rek waaye waaye boole yëpp li nga mën a jàng lépp boole yëpp di jàng te wut ci programme bu sell day mën a wax ne man ngaa si ci yoonu kenn bi nga ne boo planifié sa dund. quatre heures du matin nga jóg bala ngaa julli suba mën ngaa jàng alxuraan jàng sa xasida boo tàmbee ba julli suba balaa bët set rek kenn la gis nga jàng la nga jàng ci xasida lépp jërul jërul sayi sayi ab doon fa ñu jërul nañu fexe ba li Sëriñ Tuubaa yor ci njëriñ seytaane ba ndox suñu diggante ak moom nañu fexe ba li Sëriñ Tuubaa yor ci njëriñ seytaane bañ a dox ci liggéey nag de damaa déglu am rajo en provoquant ci Moukhaddamatoul Khidma yow ba caag benn waaye woo ko daal na ko mu wax nga dëgg de saratalan bi yëpp dañ ñu amee doole xidma waaye seen nga benn bayit Bichri mu wax mu ëpp doole xidma gépp kenn woote ne ko benn bayit wax nga dëgg waaye benn bayitu Maraxib mu ëpp doole yëpp damaa def waxtaan ci rajo boobu noppi ñu nekk ñaari fan am ku ma woo ne ma sëñ bi waaw sopp lool yàgg dégg seen waxtaan waaye nag waxtaan bi li nga xam ne waxtaan mu tey moom fi nga doon waxtaanee murid yu bari weesu nañ ma ne ko ah ma ne ko ne ko murid yama weesu day waxuma ak ñoom ñoom it nag jërëm ñuy waxal man ndax xam naa duñ déggal mu ne li may xamal mooy alxuraan ko waxee yàlla ak alxuraan yonent rek ay waxam ak jaay yonent yëpp benn benn suñu ma ko yow li nga ko ñaari dëgg mu ta am te li day weet wax sëñ Tuubaa li nga day weet wax sëñ Tuubaa la jëla ma ne ko xas boo gën a fonk mu ne mu ne ma jaay dafa laaxi ma rek mën a xóolal bëy boo wax bëy rek yàlla lay yow sëñ bi ma ko seet nañ del seet li ngay wax ma ne ko xam nga fan laa nekk ma naa la ko sëñ nga sa façon sama digg sëñ murid yëpp bu ne ma Mourou Sadikh nga cam leer ma ne sama diggante sëñ bi leerul damay tiit waaye li ma fas sama diggante sëñ Tuubaa man fi ma toll mooy bu mu ñëpp ne woon alaaji Asan yi doom murid du ma wàññi dara ñëpp laa mun ba bañu ma benn murid kilifa yeeg ñaar bu ne woon doom murid man benn kaas laay laay muy kaas sëñ Tuubaa bu ma tamponné leen sama affaire baax man damay faral di wax bu ñu ma joxoon junni milliard junni milliard tegal ma ko fii ngir bëgg maa dévier du ma ko def kenn ku yàlla bind mënu maa tax ma dàq sa bëgg bayi bëgg sëñ Tuubaa xalaat boobu ndax bu ma sama oto fii léegi amaana damaa am Tuubaa dee ci yoon te mu fay fanaan lu ma sama dalil mais orang ne bari na loo xam ñun ñun waxkat yi kuy wax ca bëgg lu nii na sa sa ceeb bëgg lu rafetal sa yére bëgg lu nangam bari na loo xam ne moo yi ndax mu ñu waaye buñ gisee boo xam ne ngeen leen xas bi nangam moo kawe nangam moo kawe nangam waaye waaye waaye waaye mu ne waaye qualité mooy waaye li ma la wax mooy fexe ba ni bi jàppee woon ñu toftalee ko jàpp ko buñ ci bëggee jariñ jàpp ko loolu léegi te wax léegi ndax gars yi bari si am na ñoo xam ne li ngay li leen gêné trop am na ñoo xam ne ñu ni géré buñ soobee nga bàyyi yaakaar nañ ne ignorant nga maanaam benn waay bu xamul dara nga da ngaa yëgul li ñuy yëg da ngaa dund li ñuy dund toxoon naa benn waay bis mu ne ma subhanallah mu ne ma mu ne ma xas yi ma ko sama yaay moo ma soxla. mun ma su ma lay wax xasida yi ñaan sama yaay ma ne ko subhanallah yow xanaa xamu ne wax sama yaay laa la wax sama wàllu ma ne ko yow yow xanaa xamu ne wax ma ne ki wax xasida yi nee na woon képp koo xam ne dañ fi ñëw jébbalu boo amee ay wajur doo fi sax doo fi dëkk da ngay takk woon demal liggéeyi wajur woon di ñëw di seereen kenn ma ne ko ma ne ko kaw kaw kaw lan ma wax moom laay gën jàpp sa wax ji boobu lañ laa ne ma ne murid yëpp buñ maase woon ci benn phénomène boo xam ne damay leer na sëñ Tuubaa wuux ko damay koy bàyyee man fas yéene nekk dana suñ tubaab wax dara leeral la ma wax te la njëriñ ne waxuma la gars yi nekk njëriñ bi rek waaye man daal li gën daal sama xel mooy la suñ tubaab ne woon nekkul ci yii nag yii ñuy def nag phénomène yi bari yii nag ah loo ci nag mbokk yi kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax li ñuy jeexal rek la boobu mooy fas day aw njàngin la sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu daañu bari moo ko daan fental boppam daana daajal boppam daañu bari daan jubbal ci daañu bari daw nangu kuy kuy baamu aw bayit di ko baamuwaat seen diw boo ko tuddee mën naa rek maa ngi kenn ci yéen moo tax ñu wut ci ñeneen jàng sëriñ Tuubaa la bokk am na bis mu muy jàng wenn bayit ne di ko baamu ak qad zaanahu qidamun maa albaqaa'i wa gayrullahi lillahi subhanallah yàlla lay misaal ne yàllaa fi jit am na ci moo fi jit ñépp daal ne si tubaab yi dama leen bëgg a xamal yàlla ñu kan mu ne mooy ki nga xam ne dul moom wala moom wa gayrullahi lillahi lu dul yàlla yàlla la bay bi yéen mu baamu ko yor ñaareel bi ñu koy baamu yor ñetteel suñu baax ne ko tëll ne ko mbaar dama koy def ab yàq boobu bëgg a dëccal lu dér di mbàkk mu ne kon jàllal sama bay bi moo bere bu suñu yem bu ci daanam ñu xaar moom moom moomu jàng na bis ba jàng bay boo xam ne dane yaa mukrima taybi jaaran kaana aw zaara fiy bàkke yaa naaxiyan an qadimin qabla awsan su ma ko ciy mbàkk ñu ko dugal mu ko yéen rek mu ko sama xas yi ñu ci mën def lépp def naa ko li nga xam ne jot ci waa ngi dara naka la ñu jot doon dara. na genn seen maxa boo xam ne daan ñëw di jàng xas de bu ma saan ñëw jaareen di jàng sëñ bi day gën di ko jóor di gën di ko jóor di gën di ko jóor ba muy dem dañ ko yanul le ko sëñ bi jox dañ ko yanul le ko sëñ bi jox bis mu ñëw. jaarab xàq nga bi nekk ci baaraamam ak bant bi muy bi muy làmbutoo bant bi mu yor mu jël baaraam mu jël jaarab bi ko di ko kàngat ci ci ci bant bi di jàng sëñ bi génnul ubbiwul def ko ñaari ñaari bi sëñ bi mu ne ah, man damaa bëggoon laaj sëñ bi gis sëñ ba xam bi ko gisee laaj nga ko man damaa ko daa mun daan def tey man sax ñaari fan yi gisoo sëñ Tuubaa dama laa bëgg nga xamal laa bëgg xamal ne man Ahmadou Mbacké foowu ma fóoluwu ma yoo xam ne léegi dangay gis ñuy ñuy ñuy tëgg ba tàcc tàcc ca kaw waaw waaw kenn xam nga loolu kon njàngin woowu lañ bàyyi xel njàngin bi des moom mooy jigéen ñi ñu bari seen xeer tax na ba dañuy jël dañuy am kuréelu jigéen loolu yoon mut xam yoon mut xam ko def mais soxna yi def yow seen duus ngeen seen xas di jàng loolu am na cosaan ci yoon soxna bu sa sil la mooy maami Cheikh Bass Abdou Khadre sa sëriñ Moussa Fall moom nekk naa si tubaab yàgg ma maa fa dem di ko laaj mu ko yéen soxna yi ngi daan def xasida yi mu ne képp ku mokkal xasida sëñ Tuubaa la daan neexal ku mokkal ko ngeen ko daan jàngee ndax dangeen ko jàngee kaw mu ne ko déedéet ma ne ko daa ngeen ko kuréel mu waaw ma ne ko doon daan demee mu ne ko sëñ bi dañ ba ci kees bu sori waxtu marax ginnaaw julli gee mu def ñu ab géew ñu toog sëñ bi jublu penk woon ñu gannaaw di daaj daaj bi ma ne ko ngeen di aw mu déedéet mu ne day daaj daaj bi daaj daaj bi ba ne ndax naa ko ngeen di dangeen ko def dangeen ko ma ko defee ñoo ko fas wéyale ne kon bu ngeen demee ba noppee dégg sama yokku tànk ngeen riim ko te bu ngeen dégg lu bokk ci man ngeen noppi da ngeen wax bu ngeen demee ba nepp dégg sama yokku tànk ngeen réem bu ngeen demee ba tàmbali dégg lu bokk ci man ngeen noppi soxna si nee na bu doon waxtu yi waxtu fukki waxtu guddi la nga daan yeewi si ñaare nee na am bis nag mu dem ba njël mu doon nga yeewi si nee na bi ñëwee julli peeg woon ñu la daane xanaa jaaxle ngeen dañu ne waaw de bàkk mu ne damaa fekk góor ma sama diggante bii ñu iblis nee na lu ma ko daan wax mu dem wax naa ko demul lu ma ko daan def mu dem wax naa ko def naa ko demul ma ne ko xanaa li nga mënoon tàgg tàggoo ñu yëbal dama damaa daa yor sama ñooñ soxna ne la sëñ bi nga ko wax na ñun daan ma jox la ko nee na Iblis tudd ay tur soxna ne ñun tuddoon ku ma ci tuddoon tey jii ñu tàggal sama bopp sama baat nee na bi ko bi leen sëñ bi tuddee nee na dañoo tiit dañoo rëb sëñ bi ne li tax ma leen koy wax na mooy damay bañ wan leen ginnaaw ngeen di sëdd fu dara nekkul bi ñuy tëddee bi ñuy rëtee ne ne bi ñu tëddee leen ndax moos ku ànd ak man de da ngay waaye ay fóot yu bee ñetti fóot yu am na pour moo xam ne xaalis boo suuf si nii sa bopp laal nga soxla woon da nga koy na am xaalis boo xam da nga koo suul ci ban bu tooy wala sinaa bu tooy. bàyyi ba wow ci soo ko soxlawaatee faaw ko tooyal ko xeet ko doo ko mën a jariñoo ngeen am na fóot moo xam ne day mel ne nga boole xaalis bi ak ak përëm jaarale ko ci taal bi togg ko moom ànd boo ko soxlawaatee faaw ko ci yàlla musul nan ngeen dëri waaw muñ benn kon ci firndeel firndeel ñaareelu firndeel mooy dafa am sama day nekk dafa nekk Dakar di fa jàngee dañoo yoroon ab daayira jigéen ña doxu ci dañuy jàng masjid def kuréel mu tere leen tere ñu bañ ñu ne woon bu ñu demee yan place bi ñëwee di siyaare fi seen doxaat sëñ bi dégg leen ñu jàng ñoom jigéen ñi sëñ bi ne teg ca ñoo ngi leen di jigéen nag ñu engrais mu ne laggal na leen ñu noppi bu dagaloon ñu noppi ndax ñu daax baat góor ñi laggal na leen ñu noppi bu dagaloon ñu noppi ndax ñu daax baat góor ñi ñetteelu firnde bi. Serigne Sall radiyallahu nit ñëw na ko ci moom laaj ko na ko mbàkkee day dana doon laaj jigéen ñi ndax mën nañu jàng fas yëngati ko laaj rek laaj ko njàngum ko laaj moom laaj xam nit kon luy xër mu tax nag ñu loo xam ne dañuy yàqal maanaam lu ne ñu ci njëriñ ñu ba téye ko jëriñoo ko ñu suñu liggéey ca moytu ak xir suñ bëgg-bëgg bopp suñ suñ melokaan bopp li ñuy jeexal nag sant bu baax a baax mbokk yi ndax lii lu am solo la seen temps bi ngeen fii lu am solo la seeni war a ma ca war ngeen sant yàlla bu baax lii day wane échec boo xam ne colonie bu ñuy jàngalee français ndaw ya daje amul menn xalaat bu dul lii seen seen échec lay wane parce que ku xam-xam ne par rapport ak anglais yi anglais yi ñoom koom ñu moo leen gën a ci fépp fu ñu waaye bu dee français li ko gën a yitteel mooy day day formaté si serveur def ca boppam sa xottu jëmmu nekk jëmmu ja nga doon waaye si lépp nekk ak tubaab bu sañoon kenn du la ci waaye dem ba ci daal di gën kawe ñu nekk fa lii am ñoom foofu xam nañ ne échec bi sëñ tubaab da doon ñoom ci sëñ tubaab daal dëkk ci yéen alhamdulilah ndax lii moo koy màndargaan lii moo koy màndargaan dangay faral di wax ne seen yitte mooy ñoom bi ngay def primaire ba ngay am bac licence ba ba ngay am doctorat dañ lay écarté la ak lépp diine xeeb loolu nag la ngeen lu doon nga xam ki napp ci moom tubaab ki napp ci moom dëgg-dëgg même boo waxee yàlla nee na pour mu dëgg wax yàlla gi naa la ah parce que Karl Marx wax na ko ci nangam wax na dëgg parce que science dëgg la

jumtukaay yi nit koy def mu la am solo bu ngeen liggéeyee dund ci àdduna jaamu si yàlla yàlla yu jàll may kon lii ngeen def ngeen xam ne lu am am solo lu rëy rëy la ndax mbir fa mu ëppee daay def gën faa rëy gën faa amee solo mooy fa mu gën a mooy fa mu gën a balaa gaz am valeur gaz daa manqué essence balaa am valeur dëgg-dëgg daa manqué kon yéen fii ngeen defee li ngeen xam ne lu rëy la ci borom bi yàlla yàlla kàttanal yàlla yàlla may ndam yàlla yàlla may xam-xam moo war a diplôme yéen wut yàlla ko yàlla may ngeen liggéeyal ci jagaat seen adduna jagaat seen alaxira dara yi gën a kawe garant yi gën a kawe euh, wàccuwaay yi gën a kawe yàlla ngeen dem am ko ndax yéen ñii bu ngeen demee ba yilif ba yilif ñu ba yilif réew mi xel naa dal am na ci yaakaar lool te incha allah taala yàgg yàgg day soppeeku jamono yi ginnaaw moom dañuy ñaan ministère nangam ministre bi nee na eh, cante yi def ci université yi nangam yi dañ ko koy tere ma leen tërëwul tànn béere tërëwul Dakar door bàyyi tërëwul nangam bëgg tere am na luñ tax yéen a dëggal leen ci bii yàlla yàlla def tawfeex su xol seet na lool lool wax nañ ko fi bu ñu ngir bëgg lu neex kenn yàlla bu ñu ngir bëgg lu naqari kenn képp koo xam ne it liy wax xaw naa touché ñu xam ne bëgg lu jag ak bëgg lu baax képp ak bëgg a jariñante laajante moo tax ma ko lox ñu ñu déglu ñëpp di sàkku ci ñëpp ñaan ñu ñaan ñu bu baax a baax a baax noo bu ñu noyyi yàlla na dem ci ngërëmu Sëriñ Tuuba ñoo ngi sàkku ñu ñaan ñu ko ci ñoo ngi ko ñaan yëpp noo bu ñu xëcc noyyi ko wala ñu génne ko yàlla na dem ci ngërëmu Sëriñ Tuuba bi yàlla am ndax bu ca demee ngërëmul yàlla ànd ca ngërëmul yonent bi la nekk ñun ñu ci moom ne ko man de Mbàkke am soxla soo xam ne su a faj man Ahmadu Mbàkke xam a ko bu dee su dul yii nag wax ma ko mun na ko bànk ñaanal ma ne asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ El Hadj Ndiaye wax di fa yàlla a yi moom leer nañ te dañ luñ def ñaanal rek yàlla def na question bëri na fi am na fi waaye xëy na waxtu moom moo ñu teg dootuñ ko mën a jukki ndax loolu bokk na li gën am solo comme waxtu bi dañoo dab nag ñu dañ lay sant di la ñaanal fi dox ñëw it ak yi nga dox dellu suñ borom def ko daraja yokk sa xam-xam yokk sa taxawaay ba lépp la nga mën nga gën koo mën di jaay Cheikhul Khadim sëñ bi jàppale ba sa lépp jàkk àdduna ak àllaaxira dañoo bëgg kontaan ci waxtaan lool ndax kawe na jot ndax li nga fi wax moom luñ war a dégg la war koo xam surtout rawatina pas-pas yu bees nga xam ne sosu na ci nga leeral ko bu baax ci mbokk taalib bi loolu lépp iblis moo ko def rek ngir daal di euh, euh, gàllankoor mbokk taalib bi kon ñu bàyyi ci xel bu baax ndax njàngat boobu mooy li gën loo xam ne mën nañ ko ci jàngat tey wasalaamaaleykum wa rahmatulah kon dañ lay wéy waxtu bi ñu daal di wéyal des programme bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf